effectivement merci beaucoup euh, on peut souligner qu'hier justement beaucoup de Sénégalais ont traîné les pieds pour aller voter euh, jusqu'à midi le taux de participation était relativement faible autour de 20 pour cent et même moins dans beaucoup de localités c'est dans l'après-midi qu'il y a eu un petit rush qui a permis un peu de sauver la face mais on est toujours à moins de 50 pour cent Euh, donc ce qui est sûr, c'est que le taux est faible. Bon, ça, c'est un constat que tout le monde a fait. Maintenant, quelles sont les raisons Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont le premier est justement euh, le rôle du député et l'utilité de l'Assemblée, qui pose problème. Les gens ne comprennent pas toujours le rôle du député et ils ne comprennent pas toujours l'utilité de l'Assemblée euh, dans l'architecture euh, institutionnelle du Sénégal, dans l'architecture institutionnelle du Sénégal. Euh, beaucoup d'ailleurs doutent même <laughs> de la pertinence et euh, de l'existence de l'Assemblée nationale. Surtout quand on voit des députés en train de se chamailler, certains euh, s'adonner à des trafics, ce qui pose énormément de problèmes. Et bien sûr, sur le fait que les lois passent comme lettres à la poste. Le contrôle de l'action gouvernementale, c'est un vingt mot. Il n'y a pas trop de commission d'enquête parlementaire. n'avons pas droit toujours à des débats de fond, mais plutôt à des colibés, des invectives et autres. Euh, c'est toutes ces raisons qui font que justement, les gens ne sont pas pressés à aller voter. D'autant plus que pour les législatives quand même, on, n'élit pas une personne. Il y a une liste. La liste, elle est souvent anonyme. Et les gens aiment aller voter pour quelqu'un, pour le maire qu'on connaît, pour le président de la République, mais aller voter pour des députés, parfois dont certains euh, ne sont même pas connus, ça, pose problème. Maintenant, il y a le contexte, en dehors des raisons je viens d'évoquer, il y a le contexte, d'hivernage, on n'organise pas des élections dans, des dans l'hivernage, parce que les gens, les, les, bureaux de vote pourraient être dans l'eau, beaucoup, euh, comme ça a été le cas dans beaucoup de localités, Kafrine, Kaolack, Saint-Louis, un peu partout, ça a Ensuite, les paysans vont au champ. Les jeunes sont en période d'examen. Voilà, euh, beaucoup de facteurs. Et non des moindres, l'autre, c'est qu'on a démarré la campagne le jour de la Tabaski. Qui écoute la politique le jour, le jour de la Tabaski Vous voyez un peu, autant de facteurs qui font que, voilà, et la cherté de la vie, mais à ça, bon, tout cela a fait que les gens étaient n'était pas du tout vraiment très très motivé à aller voter effectivement voilà voilà. Il s'agit de tendances. On n'a pas encore de résultats. On ne peut pas parler de résultats. On a des tendances. Les résultats viendront après, lorsqu'on aura une idée nette de tout ce qui s'est passé. les calculs objectifs pourraient être faits sur la base des calculs euh, des résultats globaux. Donc pour le moment, je me réserve de parler de résultats. On va parler de tendance. Oui, le temps provisoire, même ça, c'est. Non, techniquement, juridiquement, on ne peut pas encore parler de résultats provisoires. On va parler juste. Les résultats provisoires sont annoncés par la direction des élections et après, c'est les résultats définitifs seront <laughs> annoncés. Maintenant, on parle de tendance. Cela dit, Il n'est pas également superflu de dire que Yewwi Askan Wi a fait une percée extraordinaire que beaucoup n'attendaient pas. Que la coalition de l'opposition radicale, c'est comme ça que je les appelle souvent, cette coalition a réussi dans, non seulement à consolider son territoire, ses territoires, Dakar, Ziguinchor, Touba, Thiès, etc. Mais cette coalition a réussi à gagner dans d'autres localités qui étaient souvent les bastions de Benno Bokk Yakaar. Je pense à Louga, peut-être qu'on me dira que oui, globalement, peut-être Benno a gagné, mais je ne sais pas. en tout cas, la percée de Yewwi, à Louga, c'est une réalité. À Tivaouane, c'est une réalité. À Saint-Louis, à c'est une réalité. Ainsi de suite, ainsi de suite, Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition est dans les dispositions de réaliser un événement historique. C'est la, la, survenance pour la première fois au Sénégal de ce qu'on pourrait la, euh, la cohabitation politique à l'Assemblée. Et ça, on en train de voir. On ne peut pas, on ne peut dire qu'il y, aura, cohabitation, mais on dit qu'il y aura possibilité de cohabitation. Maintenant, même s'il n'y avait pas cohabitation, ce sûr, c'est que l'opposition sera tellement bien représentée à l'Assemblée que les choses ne fonctionneront plus comme avant. Absolument. On est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dynamique dictée par les circonstances. Et ce sont les Sénégalais qui l'ont voulu comme ça. Et je pense qu'il est important de respecter également euh, ce, ce, cette volonté du peuple sénégalais. À euh, que le, le peuple ait tourné le dos au régime, parce que c'est ça, de, de qu'il s'agit le peuple, dans une large mesure, a tourné le dos Pour des raisons multiples. La première, certainement, est lie au fait que euh, les promesses ne sont pas toujours tenues. Elles ne sont presque pas tenues. Au niveau de la cherté de la vie, la lutte contre la pauvreté, yonu yokote, la réduction des comptes, parce que ça, c'est plutôt la protection des siens, l'acharnement contre l'opposition, les, les libertés publiques, les gens qui meurent, les promesses de réduction des mandats qui ne sont jamais euh, respectées, les promesses de ne pas faire une troisième candidature qui ne sont jamais respectées. Tout cela a fait que les gens ont été plus ou moins heurtés par l'attitude du régime. À ces éléments s'ajoute maintenant la cherté de la vie. Quand on organise des élections dans un contexte de cherté de vie, on risque d'être sanctionné. Pourquoi? Parce que la cherté de la vie frappe tout le mo est dans le portefeuille et directement. Tout le monde est concerné. Dès que vous réveillez, vous êtes frappé par la cherté de la vie dans votre portefeuille. Le loyer qui est cher, euh, le travail qui est très difficile, etc. Donc il y a, c'est vrai, des efforts ont été faits en matière d'infrastructure, hein, peut-être pour élever le statut des enseignants, tout ça. Ça, c'est vrai. Il y a des efforts sur les bourses familiales, également sur les promovilles, etc. tout ce qui est effectivement euh, PUDC, euh, bon, ça oui, le programme d'urgence euh, des trucs communautaires, il y a aussi les, les, les DAC avec la société PRODAC, l'agence. Tout ça, on sait. Mais ça ne suffit pas. le peuple sénégal est devenu plus exigeant. Quand vous mettez un plan à 700 milliards dans un plan d'assainissement, les questions d'inondation doivent être en partie réglées. n'est-ce pas Quand vous mettez en place un plan Sénégal émergent, ben, ça doit se sentir, pas seulement sur l'autoroute à péage ou le BRT, mais dans, au niveau du euh, niveau de vue du Sénégalais. Non, il y a une déception liée surtout à l'arrogance. l'arrogance de ceux qui détiennent le régime, en général, quand on dure au pouvoir, on commence à développer des réflexes d'arrogance. Euh, C'est-à-dire, les, du, euh, je vous ai compris, les jeunes, mois de mars, tout de suite après, on dit, en tout cas, ce qui s'est passé ne se reproduira plus, on ne vous laissera plus faire. Il y a un discours qui est un discours euh, soi-disant de fermeté, mais qui renvoie à une certaine suffisance. Euh, arrive souvent quand on gère le pouvoir. Et donc tous ces facteurs combinés, voilà, l'acharnement contre les Khalifa Sall, contre les Karim Wad, avec tout ce que le président Ablaï a fait pour Maki, les gens n'ont pas oublié. par rapport à lui, les gens avaient nourri beaucoup d'espoir. D'ailleurs, en l'élisant, je le dis souvent, les Sénégalais avaient rêvé, en élisant Maki, d'avoir Ablaï sans les défauts d'Ablaï Wad. C'est ce qu'il pensait que Macky serait. Maintenant, il y a un Macky, un Ablaye sans forcément les qualités d'Ablaye Wade. Donc c'est ça qui a créé la déception. parce que c'est des déclarations d'hommes politiques. Et je ne crois à aucun camp. Pour moi, on est dans une bataille de communication politique qui est d'ailleurs mal placée. Pourquoi Comme je l'ai dit tantôt, ce pas des résultats. Ça, c'est un. De deux, ils n'ont aucune qualité pour prononcer des résultats. Ce pas à eux de déclarer des résultats. Le débat est inapproprié. On est en démocratie, a des règles. Le débat est inapproprié, maladroit. Hein? Maintenant, qu'ils puissent amener des émeutes ou pas, non, je ne crois pas. C'est que juste les gens sont en train verser dans la surenchère verbale, non seulement peut-être pour euh, tranquilliser leur, leur camp, Parce que Benoît a besoin de tranquilliser ses partisans, de dire que non, en réalité, on n'a pas perdu. L'autre aspect important, c'est mettre la pression sur ceux qui sont chargés euh, de, de, calculer, d'organiser pour qu'il n'y ait pas voilà, euh, peut-être du favoritisme envers un ou d'autres camps. Donc les gens sont en train de faire des déclarations. On est, on est, en, on est en train de poursuivre un peu euh, une forme de campagne prolongée. Mais je n'écoute aucun de ces états-majors. Moi, dès que les, le vote est terminé, je n'écoute plus les politiciens. Parce qu'en réalité, ils sont dans la surenchère verbale, comme ils savent le faire. Dans la manipulation politique, c'est très clair. Il y a tous les camps qui manipulent, aussi bien le pouvoir que l'opposition. C'est tous des manipulateurs. Et si vous les écoutez, dans un contexte pareil, vous passez à côté. Ils n'ont pas de résultats, ils n'ont pas le droit de proclamer des résultats. demande de respecter le résultat des urnes. Lorsque les résultats provisoires vraiment par le ministère euh, des élections, chargé des élections, et les résultats définitifs confirmés par euh, les autorités judiciaires, il faudra que chacun maintenant se conforme à ces résultats. C'est ça la réalité. Euh, je ne pense pas qu'outre mesure, ça crée, même si on peut dire, parce qu'il y avait des troubles préélectoraux, par exemple, il y a eu même mort d'homme le 17, tout le monde s'en rappelle. On craignait que le 29 qu'il y ait des manifestations, heureusement il n'y a pas eu. Qu'il y ait des manifestations après les élections, ça c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je dis bien ceci, c'est que nous avons fait preuve de maturité, le peuple sénégalais, je parle, a fait super faire preuve de maturité. Une leçon de démocratie encore lancée à la face de, du monde entier. Il faudrait que nous nous, nous inscrivions davantage dans cette dynamique-là. je pense que l'opposition a assez réussi à bousculer les, les, lignes pour ne pas devoir encore verser dans la violence. Le peuple a suffisamment montré sa confiance en une bonne partie de l'opposition sénégalaise et je pense que c'est une large satisfaction qui doit pousser l'opposition à savoir raison garder. Il est évident qu'en dehors de toute considération politicienne, aujourd'hui chacun sait, connaît les résultats Tous les états-majors ont les résultats. Ils ont leurs euh, euh, techniciens, ils ont les PV. Aujourd'hui, ils savent exactement ce qui s'est passé. Maintenant, le problème de la politique, c'est la mauvaise foi. Il y a des gens qui sont de très mauvaise foi, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Donc, moi, je ne les écoute pas. J'écoute les instances régulières chargées de programmer des résultats. Et à partir de ce moment-là, on saura. Absolument oui. Bon, j'avais dit, euh, ça je l'ai toujours soutenu, pas des gens qui ont des mouvements politiques forts. Ils n'ont pas de parti politique fort, ils n'ont pas de mouvement politique fort. Ils viennent de créer des partis et des mouvements. Donc, ils n'ont pas eu le temps de réussir un ancrage au digne de ce nom au sein de la société sénégalaise. Il s'ajoute un problème que tous les intellectuels pratiquement sénégalais ont, de Cheikh Anta Diop à maintenant, c'est qu'il y a une sorte de hiatus, une sorte de fossé entre les intellectuels et la grande masse. Souvent, les intellectuels ont du mal à être de vrais politique Bien sûr, il y a des exceptions comme Ablaye etc. Mais en général, les exceptions ont du, les, les, les intellectuels ont du mal à être de vrais politiques. Parce que pour être un vrai politique, il faut descendre à la base. Il faut être avec les gens. il faut être dans leur baptême, leur qui. Il faut parler comme eux, il faut savoir se préoccuper d'eux de, en permanence, ce que les intellectuels n'ont pas le temps de faire ou n'ont même pas la volonté de faire. Parce que les gens n'ont pas besoin d'être dérangés tout le temps. Est-ce que si vous appelez, vous allez décrocher Est-ce que vous allez vous occuper de leur funérailles Est-ce que vous allez, vous allez vous occuper de leur baptême Est-ce que quand ils ont des pommes de dépenses, ils peuvent vous appeler C'est pour le Sénégalais. Je pense que les Abdoumbaï, tous ces gens-là, même s'ils ne sont pas d'art, ils sont dans d'autres coalitions, mais tous ces gens ont ces problèmes. La, leur manière de faire la politique par des communiqués, des déclarations, des trucs, ça, ce n'est pas très sénégalais. Si vous voulez créer un parti populaire, vous descendez à la base. Et vous, vous changez de paradigme. Mais si vous restez intellectuel, euh, réfléchi, euh, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous suivre. Et je pense que peut-être Art n'a pas eu aussi assez de temps pour asseoir les conditions d'une vraie synergie autour de la coalition. Les gens se sont coalisés très vite sans avoir des bases solides. Et ça, ça crée un problème. Les Sénégalais ne se rappellent pas qu'ils doivent voter pour Art parce qu'ils ne connaissent pas bien Art. Voilà, la présence, il n'y a pas eu de temps. les leaders qui, ont, qui, sont, qui sont regroupés au sein de AR ne sont pas, n'ont pas forcément de grands partis, n'ont pas de grands mouvements, même s'ils ont des parcours au sein de l'appareil d'État. Euh, ça laisse à désirer et peut-être que ces Sénégalais ne se sont pas rappelés de la nécessité peut-être de, de les porter à l'Assemblée. Alors que ce serait important, c'est de bons profils. Personne, non. peut parler par exemple d'une bonne moisson, d'une bonne réussite pour lui, qui aurait dû déjà être recalé au niveau des parrainages, il n'a pas été recalé, heureusement pour lui. S'il réussit à avoir un siège député, ce sera encore tant mieux. Il aura peut-être fait l'essentiel pour euh, euh, une première, comme vous dites, ensuite très jeune, euh, véritablement, qui n'était pas dans le milieu politique. c'est déjà, déjà une, une prouesse. On lui souhaite bonne continuation. Maintenant, il est sur le terrain politique, il n'est plus sur le terrain des médias. Parce qu'on peut pas faire les deux à la fois. Moi, je suis convaincu. On peut pas être journaliste et communicant. On ne peut être journaliste et politique. Pour choisir votre camp. Voilà, sinon vous mélangez tout. Et ce n'est pas admissible. Il va de soi que le journalisme mélange à tout les gens qui se sont fait une once de popularité ont su l'exploiter parfois pour des élections. On a vu Ndoye Bane, on a vu Ahmed Aïdara, on a peut-être Pape Djibril va suivre. Et on lui souhaite d'être à l'Assemblée. de fait, du fait de sa jeunesse également, et aussi de ses aptitudes intellectuelles. Donc euh, voilà. Mais euh, il n'est pas encore dans des, dans postures de faire des miracles. <laughs> nest pas <laughs> Écoutez, à l'Assemblée nationale, ce qui va changer, c'est justement, euh, on risque de nommer un Premier ministre qui soit favorable à, à l'opposition. C'est le président qui nomme, pour qu'on puisse voter les budgets et les lois. Si vous refusez, si le président ne nomme pas, prend quelqu'un de son camp, ou prend un, une personnalité soi-disant neutre, qu'est-ce qui va se passer Les députés peuvent refuser de voter. Vous amenez un projet de loi, ils ne votent pas. Vous amenez la loi de finances, ils ne votent pas. Vous allez gouverner comment Difficilement. Avec des ordonnances, que je dis à l'une à des ordonnances, ça sera compliqué. Vous voyez un peu la situation. Et cette situation n'est pas nouvelle. Elle serait nouvelle au Sénégal, mais elle n'est pas nouvelle en Afrique. Elle s'est présentée en Guinée-Bissau à côté. Pendant quatre ans, tous les temps, Umbalo, quand Umbalo n'était pas là, pendant que président Vaz, pendant quatre cinq ans entre le président Mario José Vaz et le, et le président de l'Assemblée nationale, Domingo Chimios Prera. C'était le, ils étaient à coup de y Il n'y a jamais eu de vote de budget, rien. Blocage institutionnel. Donc ce scénario est possible. Le président peut nommer un premier ministre favorable à l'opposition qui exécute les missions de l'État, ou bien il refuse. Dans ce cas, il risque de, d'aboutir à une crise institutionnelle avec le refus systématique de la majorité, certainement, de voter les lois, surtout la loi de finances. Parce qu'ils ne vont pas voter une loi dont ils n'ont pas, dont ils sont pas d'accord de l'utilité, de des orientations. Vous voyez Ils vont dire non, on n'est pas d'accord sur vos orientations, on ne vote pas la loi. Il va peut-être chercher de l'argent ailleurs ou essayer de faire fonctionner des choses, mais il faut bien payer des salaires et tout faire. Euh, ce sera compliqué. Donc le, la meilleure solution serait de nommer un premier ministre favorable à l'opposition. Mais là aussi, si vous le faites, vous, presque ça veut dire que vous abrégez votre pouvoir. Euh, dans ces conditions, est-ce qu'il ne serait pas mieux de, de démissionner et d'aller à des élections anticipées C'est fini, sera 2024, on serait dans les élections présidentielles. Donc, ça ne servirait à rien de dissoudre l'Assemblée à ce moment Mais actuellement, il ne peut pas le faire, du fait de la loi. Sinon, ce serait trop facile. Quand l'Assemblée vous dérange, vous, vous, vous, la, vous, la ah, normalement, si le président raisonne bien, s'il raisonne bien, il, de, il, devrait savoir que même s'il il pense avoir droit à une troisième candidature, les Sénégalais risqueraient de le sanctionner, comme Maître Ablaïwad. qu'il a peu de chances d'être élu dans ces conditions-là. Que le, le peuple lui a déjà donné un signal fort, que les gens ne sont pas certainement favorables à son programme, que beaucoup n'aiment pas son programme, n'apprécient pas sa, son programme. S'il s'entête, il sera battu à plate couture. Je pense que la meilleure façon pour lui de sauver son camp, c'est de se déplacer, de laisser un autre s'occuper de Benno Et que lui, il se retire, il commence à se retirer. non c'est pas lui si si Benno est toujours majoritaire mais si Benno n'est pas majoritaire ça c'est autre chose mais si Benno est toujours majoritaire il peut nommer un ministre et le préparer pour le Dauphinat parce que c'est la meilleure chose il a tardé à le faire d'ailleurs il aurait pu le faire depuis longtemps depuis non non il a il devait nommer un député premier préparer quelqu'un pour le Dauphinat euh, multiplier les chances d'avoir beaucoup plus de sympathie envers les Sénégalais. Parce qu'une des raisons pour lesquelles également les Sénégalais doutent de lui, c'est justement cette politique de ni oui, ni non. Alors qu'il avait dit qu'il parrainage. Euh, c'est-à-dire, je ne vais plus faire. Maintenant, si dit euh, ni oui, ni oui, ni oui, non, euh, ça pose énormément de pour beaucoup de Sénégalais. Parce que, euh, voilà, c'est sa parole qui est remise hein, en cause dans nos sociétés orales le respect de la parole également signifie quelque chose. Donc si euh, le gars se permet de dire nous oui, non, alors qu'il avait dit non, euh, qu'il n'allait pas se représenter et qu'il allait réduire son mandat de 7 à 5 ans, tout ça, il n'a rien fait. Et réduction des comptes en prison des opposants qui, et, et non pas ses proches. Et, vous voyez, c'est que ça fait, les frustrations accumulées. Petrotim, avec son frère Alussal, il disait qu'il n'allait jamais le nommer par décret, il l'a fait. Au niveau de la caisse de dépôt et consignation, Vous euh, voyez un peu, euh, ça fait un peu trop. Euh, ce qui a créé un capital euh, euh d'antipathie ou de disempathie, pour parler comme euh, les spécialistes, à son égard. Le, le dernier mot, c'est juste que nous avons un, une chance au Sénégal, c'est d'avoir la paix. Et il ne faut pas qu'on perde la paix. Et la paix, c'est notre richesse la plus importante. Prés travaillons à préserver la paix. Pour cela, respectons les résultats des législatives, des élections. Que chacun, chacun respecte les résultats législatifs en travaillant pour la paix. Parce que si on perd, notre bénéfice principal, c'est la paix. Si on la, on la perd, effectivement, on perd tout le reste. Donc c'est important que chacun y travaille.